thank you mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi nga ànd rek si kon ñu xamee seen émission fin d'année ah, dikkaat na te nag ci beneen fànn la ñëwaatee dem ci wàllu santé ah, pour ñu aussi ñu xam comme comme ni ko xamee à chaque fois ah, ñëw ku ne wér gu wax avant tout ku ne santé wax wax lépp tey mbokk yi waa wér famille leen dajaleel fii xam te nekk mooy ci Bourtois pour rek ñu am waxtaan boo xamante ni day jëm ci wàllu bilan bi nga xamante ni def nañ ko durant un yi nga xamante ni ko doon boosee fii ak Thiès ak li ko wër waaye nag ba bal ma ja sori maa ngi ak sama càmm ki xam nekk mooy Moustapha Guèye ah, bokk ci membre yu wér la eh, sama ndeyjoor ak ki xam te nekk mooy madame Diawara eh, nekk sage-femme fële xam te nekk mooy hôpital eh, bu bu maam El Hadj Ndiégène foofu la nekk mbokk yi ñun ñett ñi laa avant que le président di ñëw may balaa boobu dañ bàyyi ñu nga xam te nekk mooy président bi wala nga xam nekk mooy membre bokk ci wér-wér la muy Moustapha Guèye ma bàyyi ko mu nuyu internet yi nga xam ne à chaque fois ñooy seetaan à travers site bi xam ne ñoo nekk fi biir Thiès Moustapha asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. daka coonee. sant yàlla bu baax nga sa balaa de. waaye. <laughs> ma bàyyi ko nuyu mbokk yi seetaan. waaw salaamaaleykum mbokk yi. Mhm. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar. Mhm. waaw toog fii tey nekk membre Wër Wër de famille. Mhm. toogal fi Wër Wër le famille. fas yéene waxtaan tuuti rek. si Wër Wër le. ubbil président. ko defee su ñëwee moom mën a eggale macha allah mu nekk lu am solo mu nekk Moustapha Gueye nekk membre ci Wér Wérlé waaye sax man lay jox maa ngi xam nekk mooy madame Diawara madame Diawara asalaamaaleykum maaleykum salaam di jee mhm. jaar dalal fii si quartier de Dakar mhm. Wér Wérlé dalal na a mhm. vraiment ñëw tey ji fas yéene culture euh, année 2022 en beauté tout avec Wér Wérlé famille macha allah mbokki bi ngi noonu plateau ñu ñëw ko seq ñu wax laaj ak tontu dox sama diggante ak ñoom Moustapha en tant que membre Weer Werle euh, noo ko gisee ak ka nga ci dugg. waaw en tant que membre Weer Werle Weer Werle bi ma si duggee léegi xaw na yàgg. Mhm. mat na ay at. Mhm. wax dëgg yàlla mu nekk groupe boo xam ni. Mhm. day dox ci social. ok que ñi fi nekk ñëpp. kenn ku ne day bàyyi sa temps ak sa yitte. di dox di dimbale askan wi. ñuy def ay consultation mm-hmm. ay dépistage mm-hmm. ay yeneen ak yeneen yoo xam ne lépp si social la la mën motivé comme comme gis nañ wér-wérle organisation wala santé moo la gën a yëngu ci mooy objectif am mm-hmm. yow doo doo je peux dire que santé ñaa ngi santé wala nekkoo santé avant tout nekkoo ci nga intégré la mu la gën a motivé ba nga intégré ci biir euh, organisation boobu waaw li ma motivé bokk na si euh, dama yàgg di dox si affaire sociale ba benn jour benn femme ñu ngi wax Aïssatou madame Ndaw mu ne ma yow de gis naa la si suñ groupe bi daal soo si bokkee parce que gis naa ni ngay dox affaire yooyu loolu bokk na si di ma indi si groupe bi mhm. te bi ma ñëwee li ma si doon séentu fekk naa ko fi mhm. parce que groupe la boo xam ni mhm. képp ku jóg dox jëm si faj doomu aadama rek jàpp naa ni yaa ngi si loo xam ni social la. Mhm. ndax ndax yomboon na en tant que membre ñëw intégré seen biir ñëw boobu ba tey mel ni ngeen mel tey. waaw jafe woon na nag. Mhm. mais jafe na jafewul. Mhm. parce que nit soo dikkee fekk ñi ngi fi fekk. nga fekk si leen si liñ nekk rek. dina yomb pour nga adapté wu. voilà luñ doon xaar ci yow. liñ doon xaar si man mooy que ni nekk benn membre bu actif. suñ wootee. nga teew bokk si ñuy doxal di joxe sa xalaat joxe sa taw loolu lañ doon xaar si man. Mm. donc joxe naa ko daal ba mu mat. Mm. en tant que jeune lu mën a xaar ci moom année bi jeex na mais bébé yaa ngi noonu. Mm-hmm. lan lañ mën a xaar ci Wér Wér la yow en tant que mën a appuyer comme. waaw en tant que membre. li a appuyer. Mm-hmm. bokk na si euh, maanaam yokk. Mm-hmm. année bi ñu bilan bu baax la. mais ñu yokk jëm si année bi nga xam ne moom lañ jëm. ok waaw. waaw loolu laa gis mooy yokk. jëm si kanam merci beaucoup en tant que membre dinañ ci bu baax a baax ci leer yi xam indi ko ci mbokk yi ba tey mu ngi noonu mu nekk lu am solo kenn ci membre lañ jëloon mu gën ñu expliqué wér li mm-hmm. gën ñu wax maanaam li tax mu dugg ci wér li ba tey li mu am angu tey waaye nag sama ndaje maa ngi ak madame Diawara madame Diawara euh, yow en tant que euh, membre wala en tant que sage-femme ne ci biir wér wér le lan moo la motivé ba nga dugg ci wér wér le avant tout damay ñëw nuyu ci nuyoo bi nuyul sañu waa koñ mm-hmm. Ndioba euh, Sène euh, a ngi nii. Mhm. représenté waa association bi comme wér-wér la ñoo ñëw fii. Mhm. te il faut bi tam soo dugg si kër dangay wax da ngay fëgg. moom ba ñëw na tey. Mhm. Euh, waa koñ bi chef de quartier association des femmes yi mu yónni ko mu ñëw. mu bi fii si journée wér-wér la bi. di aussi sama mbokk naataangoo yi waa staff Ousseynou Diouf. Euh, nuyu naa leen Balde. Mhm. Ousmane Gueye nuyu naa leen. Mhm. Euh, ñëw si sa question. wér-wér mhm. la lu tax ma dugg si kañ laa si dugg def na léegi deux ans. à travers le président notre brave et honorable président jéegi euh, Diagne. Euh, comme ay journée d' activité yi ma daan def ñu nekkoon si benn mouvement action professeur Daouda Ndiaye mhm. ñu organiser ay activité si quartier bi fii mhm. léegi nag mu ñëw rek demal ma mhm. jàpp ma parce que avant tout c' est un mari c' est un sama mag magam moo doon jeen ci sama mag yal na ko yàlla teeru si àjjana Firdawsi muy Kollo Diagne ak frère am yëpp nga xam ne mujj bi ñoom ñoo génn si àddina ak toute sa famille parce que si famille am laa bokk léegi ma gis nu muy taxawee mu ñëw wax ma tuuti si wér-wér le ma vraiment euh, association la boo xam ni vraiment. Mhm. ànd ak ñoom lu baax la. honneur mhm. la surtout sooy œuvrer si social. Mhm. si laa dugg si weer weer la maa ngi sama deuxième année. et regretté wu ma vraiment nu ma duggee si weer weer la. parce que avant tout c' est une famille. vraiment suñu famille am na ay pàcc papa am na ay yaay am na ay bàjjan. di si nuyu dem boo maman Africa vraiment ñu neex a àndal. ñu mën a uuf njaboot. si si famille bu neex la daal. ci loolu man Diawara ak yomboon naa. da nga nekk sage-femme ñom ñi nek ay infirmier soit infirmier soit ay ay aide infirmière ndax coalition bobu yomboon na exactement ba nga leen intégré ci seen biir. ñëw na parce que c'est la c'est la santé bien que wér-wér amna domaine yu bëri. Mhm. mais personnel de santé bëri nañ ci mhm. day dañuy mottale ko. so soo gisee infirmier mënul dem euh, sans sage-femme sage-femme mënul dem sans infirmier. day gën gëna yombal liggéey bi. Mhm. activité ñuy def ci santé. vraiment daf koy gëna yombal. wàllu coalition bobu nu démé won coalition bi ngeen def ba tey ba tey maanaam force bi. nekk fi ñooy ci dañ si am ay activités yu baax ngi def ay sorties. Mhm. te ku si gën a ñëw rek day gën a yaatal. Mhm. parce que comme objectif man si côté santé si santé sociale si wér-wér la. Mhm. ku si ñëw bokk nga nekk personnel santé rek. ba si koo xam ne sa assistant nga leneen leneen matron tout ça da nga siy dugg. Mhm. conseiller en santé technicien ñoo xam ne ay social la ñuy dox yokkee ngi nii hôpital régional lay liggéey. waaw du personnel santé mais mi ngi si administration yooyu yëpp. Mhm. Euh, dañuy mottalante daal. Mhm. dañuy mottalante dañuy dimbale si sañuy sorti yi sañu activité yi ñuy def. ok différentes sorties yi ngeen def noonu ndax yomb na nga nekk hôpital sax njëgeen ki nekk fee ki nekk fee. est-ce que coalition boobu noonu seen biir euh, xawoon naa am ben jàppante bo xam bi ci bii activité ni dina meuna am euh, comment li ngeen bëgg ci par rapport liggéey bi ngeen bi ngeen def. bien sûr def si daf si jàpp positif la. cohésion bi kii mi ngi fi am na ñoo am ñu ngi si yeneen région am na ay membres mbir la yu nekk yu nekk sage femme et yu nekk partout dans le Sénégal. activité su amee dañuy dajalo rek dem. Mhm. ñu dem def suñu activité mu réussir. Mhm. wa amu si benn sikki sak mhm. nga sage femme walu garab yi.

waaw collectif bi ñun suñu jàmm bu ñu rek cohésion bi rek fu ñu jógee ne dañ koy def rek mhm. chaque fois day réussir mhm. parce qu'on commence toujours à zéro franc mhm. et on réussit waaw collectif boobu ni demain? demee dañuy def ay demandes am ay partenariat def suñu ay cotisations. ñu cotiser après wut ay lettres def demande aux autorités. aux partenaires par exemple PNA on merci de passage notre directrice ancienne directrice de PNA. Euh, docteur euh, kii OK Euh, daf ñu doon jàppale bu baax si sañuy sorti yi surtout cette sorti ñu def si sud dañuy def demande vraiment ak euh, euh, pharmacie régionale bi fii mu boole ñu ñu on travaille pour la société mm-hmm. on travaille pour la ministère ñun lii wér-wér yi dañu war a gën a ñun taxaw mm-hmm. à travers nos activités nos objectifs dañu xam ne ñun. dañuy liggéeyal développement. même tout acteur de dañu war a di woo wér-wérle. Mhm. dañu war di def ay mission di ko jox wér parce que gis nañu lu ñuy liggéey parce que dañu leen di jàppale si seen liggéey. Mhm. pour gën leen yombal développement Sénégal si côté domaine d' activité yëpp si. muy ah, nekk voilà mbokk yi mu nekk lu am solo li nga xam ne ko waaye nag ñu ngi séance bi ne ma euh, le président dafa tardé <laughs> la mhm. li mu añul moo tax tabarkaala moo tax mu taara ni mu tardé euh, madame Diar wax nga ko sànq euh, ci wàllu euh, midi médicament yi collecte bi ngeen def diiru ñaata mois wala ñaata semaine ngeen koy travailler pour am don bi xam moom ngeen bëgg pour satisfaire la population waaw mun nañ ko def parce que suñu waxee par exemple tey ñu ngi si décembre mhm. ñu ne février dañu bëgg def benn activité dañuy commencé léegi def suñuy lettre mhm. commencé def mhm. def collecte def planning loo gis da nga koy planifier balaa nga koy réaliser. ok waaw discuter def ay réunion par ci et par là. Mhm. vraiment ñëpp si jóg. Mhm. song ko daal ba nga xam ne su février jotee lépp day nekk sur place ñu mun a def Fatick. macha allah euh, mu nekk lu am solo li nga xam te ne ko par rapport moom en tant que sage Euh, nekk ci structure yi nga xamante ni nag gis ngeen ni xam ne loolu la waxee donc ak ni nga ko amee waaye nag Toubatois daal ki nga xam te ne nag moo di président ki nga xam te ne moo di noyau su peut dire moom mi nga xam ne moo initié le groupe ba mu am lu am tey ba mu jàpp ni mu jàppandi ah, dama ko bàyyi mu nuyu mbokk daa tardé xam jaañen la xam nga heure bi tawarkaal dañuy xiif moo tax euh, dañuy xaw a tawarkaal la jéegi salaamaaleykum euh, la bu baax mm-hmm. di remercier aussi ñi fi teew ñëpp mm-hmm. vraiment muy a mbégte mm-hmm. certes dañu tardé ci ah, lii ah,

di daw ci service social bi vraiment aussi ñuy remercier aussi hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu baax mhm. ñi nga xamante ni ñoom bokk nañu suñu ay partenaires potentiels yi nga xamante ni aussi dañoo jàppale wér-wér lañ mhm. vraiment ñooñu aussi dimbale lu am solo mhm. mais mu doon xaw a néew doole automatiquement wér-wér day ñëw suma xel quoi jé jéggi la <laughs> voilà ba idée bi ñëw ne ne wér-wér la waaw euh, bon kon ni ma wax que ni affaire bi mbooloo la quoi te mbooloo mooy doole. Mhm. idée bi daf ma ñëw ni automatiquement j'ai créé benn groupe Wër Wër la. parce que nag aussi xam ko wax jaay blouse aussi wax ay contact direct yoo xam ne. da nga koy am ak ñu ngay liggéeyal. mooy mhm. sage famille infirmière médecin ainsi de suite ainsi de suite. donc moomoon naa benn répertoire bu intéressant mhm. automatiquement ci saa si. ma créé benn groupe bu tudd Wër Wër la. il m'est venu comme ça donc euh, jël ay président mutuel de santé ay sage femme infirmière ñëpp. boole leen ci. et je crois que dañu dawal une semaine après mu doon groupe xaw bu amoon solo tuuti aussi. benn femme bind ku ma Ndiaye nekk médecine bon ñu koy remercier aussi. mu nekkoon jàmbaar ci groupe gi bind wér-wér les familles mhm. automatiquement man ba famille yóbbu ci kaw donc wér-wér les familles yi. Mhm. noonu la liggéey bon. Ah, ndax yow na jéggi nga fekk nga ne benn activité boo xam te ni ay médecins ñoo nekk ah, ndax exactement loolu yomboon na waaw hmm. franchement parce que groupe la boo xam amuñu ci woon wax dëgg benn parce que ressources humaines bu am importance aussi groupe le coordonnateur national de le Bokar mu a hmm. jamono yi yëpp moom itam metti aussi parce que da ci liggéey bu am solo hmm. parce que xam nga Bokar aussi ñu gis euh, ay maman mamans depuis pédiatrie ñu euh, ay depuis urgence ay madame Zaki national sama jabar ñoom astu ñepp nekkoon ci vraiment ah, waaw waaw suma soxna waaw bëri rek ñoom may soxna xam naa ne dañ nga kumpa mais après dañ ci ñëw quoi donc voilà non la wér-wér lay noonu la dikkee ah, ah. bon parce que wax dëgg yàlla daal mhm. sentiruma ci ben jafé jafé mhm. parce que une fois dama créé groupe bi yagul dara mhm. ñu ma gis élargissement rek e ñu dajé nga ajouter ko dem jëli président bay di parce que mi ngi won radio yéen nga doon liggéey nga jël ko xam nga ni mi ngi liggéey ci prévention routière bi mhm. nga ajouté ko donc lépp lo soxla won rek dafa nekkoon ci samay loxo bon yàlla nag moo ko yombalaloon vraiment vrai wax dëgg yàlla mhm. musuma ci sentir jafe-jafe parce que xam nga liggéey mhm. booy liggéey nga nekk njiit waaw ñi ci ginnaaw ëpp la xam-xam gën a ëpp la

waaw mooy li ma la wax rek euh, Wër Wër la mhm. moom mooy yóbbu boppam moom mooy yóbbu boppam parce que dañ ko créé comme ni wax mhm. créé ko ci saa si groupe infirmier médecin ainsi suite donc da ngay jékki di liggéey am thème de la semaine nga ne tey femme bi ñëw ci hôpital bi wàccu ok femme est ce que non. Mhm. femme de ménage technicien de surface est mhm. madame Diawara bon thème de la semaine. le technicien de surface qu'est-ce qu'on va faire. Mhm. madame Diawara elle la là, poste de santé. technicien de santé technicien de surface elle est très brave nañ automatiquement mu ñëw def thème ñu benn technicien de surface def ko ne non kii di wax ànduma ci. donc mooy li wax groupe bi aussi groupe la boo xam ne dafa nekk benn groupe boo xam ne c'est multidimensionnel. Mhm. y a des de techniciens comme technicien de surface. Mhm. y ay ingénieurs. y ay parce

ah le 23 octobre ah. mu tombeek anniversaire le le chargé de programme muy El Hadj Malick mu taxaw ni ñu koy nuyu. je crois que xëy xëy na sax li may wax mooy wér-wér lay bëri na ay mbir yu ci daje. yoo xam ne lépp mbiru yàlla suñu borom. si première activité. Mhm. bon franchement c'est suñu première activité comme ni ma la wax. Mhm. boobu bi bi ni toog ngeen créé ko yéen seen biir ngeen def ko wàcc la terrain nu demee woon. léegi boobu aussi mooy li ñu wax que ci feuille de route wér-wér bi dafa bokkoon dafa bokkoon euh, ci ay campagne de sensibilisation yu ñu waroon a def. waroon def ay visite de proximité. ay visite de courtoisie jëme ko ci école yi. Mhm. parce que ku ci nekk da ngay naan man am naa benn xarit ci école diw. man ngi dem ñu seeti ko. donc noonu ñu njëkk def suñu activité bi ñu njëkk def ñu ngi ko def ci école de santé bu tudd Infosite. Mhm. nekk wetu maire yi. Mhm. mu nekkoon aussi kii bu amoon solo. mu nekkoon ndaje bu am solo. ñu jóge fa après dem Égypte def benn tournée scolaire ci établissement scolaire yi. mu nekkoon réussite à 100 pour cent. vraiment euh, macha allah mbokk yi mu ngi noonu mu nekk Djigui Diagne euh, mu nekk euh, le président wér-wér les familles dégg ngeen ni nga xam ne noonu la créé ak ba tey li mu am encore tey Mame Diawara nga nekk sage-femme seen ay jafe-jafe en tant que sage-femme exactement lan la jafe-jafe yi ngeen yu ñu dund si wér-wér waaw ba tey wér-wér en am na ay jafe-jafe parce que loo gis rek am na ay mhm. jafe-jafe mhm. mais chaque dañuy chercher à combattre di def appel aussi ñoo xam ne seen war la ñu ñëw jàpp si ñu jàpp si mhm. parce que suñuy sorties yi par exemple si lors de nos dépistages yi sorties dañuy def ay dépistage contre cancer du col de cancer du sein Euh, dañuy am ay jafe-jafe par rapport au matériel bien que dañuy am ay dotation mhm. ñuy jënd yenn pour dolli mhm. mais chaque fois dina am loo xam ni dafay manqué mhm. surtout ko nga xam ne wér-wér la amagul doole boo xam ne war na jënd yooyu parce que on doit avoir du matériel complet ñu mënoon am sax ay hôpital mobile

bon pour satisfaire la population malheureusement dañuy bëgg def social 100 mhm. mais pour xam ne ñëw na mu soxla tey genre ñu dépister ko positif. Mhm. mu war a def crieur rapide dañ koy envoyé vers l'hôpital régional. su dee le la ñu nekk ci nga xam ne foofu ak nu mu munti doon nu ñu def social social te amuñu na waa di def ñuy jàppale. Mm-hmm. di ñuy jàppale. parce que am na doom boo xam ne Mamadou Wér la ay gorom. ok si di faal. mais ak nu mu munti doon régional dina am benn somme booy mun a versé. Mm-hmm. su doon suñu sago nag képp koo xam ne dépisté nañ la nga dem foofu. Mm-hmm. dañuy am partenaire boo xam ne day wala hôpital régional wala état fii wala région médicale le médecin chef. région wala district ñu ñuy jàppale à 100 pour cent. parce que maa ngi nii di ko fàttali ñoom ñoom la ñuy dimbale. seen ay objectif mhm. seen objectif ñoom la ñuy dimbale moo tax wér-wér la teg objectif yooyu pour dimbale meilleure santé pour la population mhm. donc tey jii ñoom lépp loo xam ni wér-wér la dañ si nekk dañ ñu war a jàppale cent pour cent mhm. di ñu doté de ces matériels là pour ñu mën a def liggéey pour ñu mën seen liggéey comme il faut ah, jéegi euh, madame Diakhoune ko sànq sur ay programme depuis cinq ans yi ngeen déroulé waaw je sais que après peut-être que président El Hadj wala Béji dañuy ñëw gën a dugg ci programme yi. Mhm. comme ni ma la wax donte nag man maa jiite xëy na wér wér mhm. mais ñoom liñ ciy yëg ci coono man yóbbu ko ci. Mhm. dèjà ñoom liñ ci maîtriser yàlla xam na ko ni man maîtriser wu ma ko programme phare. bon donc euh, comme li ko madame Diarra waxee bon programme phare yi mooy. wax naa ko DJ ah wér wér la nañu nekk. outsider association yi. Mm-hmm. ñu nekk outsider yi ñi ci gën a néew doole. waaye nag danaa naa yi ñun du ñu tray jéem. xam nga tey suñu ne association bu mel ni wér-wér lay nga xam ne mosul am. Mm-hmm. Ah, benn revenu financier bu jógee ci état wala ci mairie. wala benn subvention municipale bu jógee ci mairie ñëw ci wér-wér lay donte nag dañu am suñu récépissé. Mm-hmm. am aussi lépp lu mu laaj suñu ay références yu valable donc voilà. et bu suñu am aussi benn subvention bu jógee ci wala ci kii mairie tey nga dégg ñu ngi <laughs> tey nga gis euh, ñu né am nañu ci wër yi 3 malade mhm. madame diawre mu ne bu dee ko dugalee ci bi ma bàyyi. Mhm. donc voilà ay bir yo xamné ne dafa kii parce que né la tay social bi du rek li ñuy def ànd ak professeur Dado Ndiaye dem Matam. tout récemment jóge nañu jiré ji. Mhm. waaw waaw Sadio Mané invité nañu. invité nañu dëkkam <laughs> Bambali. je crois que lolu ba mi ngi ci page Facebook wër wër la yi nako nit ñu xol quoi. donc yooyu jarul ñu ci ñëwaat. mais xamna dal li ci ëpp solo ëpp ci solo ëpp ci solo moy donte sax 10 personnes la ñun gëm nañu ni dimbale ñu 10 personnes ci Sénégal mais nak comme ni ma wax association bi nga xamanteni amul ben subvention amul ben autorité bu koy jàppale astafurlah amul ben état bu koy jappalé peut-être quelques autorités de la place ñokay jappalé suñu mënee taxaw daaw ñu taxaw ni dañuy tabax kër kese dama jàpp ni wér-wér la gagné. foo dem foo dem ci internet bi. Mhm. foo dem ci YouTube bi. foo dem ci page Facebook bi wér-wér la. Mhm. doo ko ci gis pourtant c'est des réalisations yu fiable. Mhm. ñu toog fii ku ci nekk génn na sa dërëm sa ñaar dërëm. ok ñu réaliser loolu. ok wér-wér la actuellement ñaata élèves lay fayal ñuy jàng ou bien lay mottalil sa ne scolarité. et pourtant kenn du ko wax. te lépp yéen a ngi koy def sax si ngeen ñëw. def et gars xam nañu. parfois ngay gis ñu war a def benn. ben action génne xaalis. madame Goudia bi mun sarah yaasin ngir yalla dama la ñaan tey bul génn maay génné donc on a beaucoup d'argent les gars ñuy bañ. Mhm. parce que am am rek moy tay ba ñuy créer li on était à presque moins de cinq cent francs en caisse. ok il a décaissé que il a il a décaissé que cinquante mille francs. tay xalé yi mëna réaliser lu toll ni parce que ku ci nek mhm. indi nga lo am ñu bolé ko donc wér-wér. noonu lay euh, fonctionné wér-wér amna siège. Oui, non actuellement non comme comme association mhm. siège bi actuellement villa 143 à Sétalami donc comme comme est, pour bon parce que malgré mon siège Je hein. man dama koy wax mhm. donc nous la une bonne volonté bu tudd xëy mhm. euh, monsieur Doumbouya un DG Prestige Nous, nous nuyu nag bu baax passage. Parce que si on parle de l'étude humaine, ce qu'on parle, c'est combien d'infirmières il y a, combien de à il y a, combien de sages-femmes il y a, combien d'assistants à y Donc, il y a une clinique pour tout le monde. Il faut offrir ça, mais aussi il y a des fondements. Donc, aujourd'hui, si on est siège, c'est ce qu'on doit aller. Mais on n'est pas un bureau. Imagine-toi, aujourd'hui, l'occasion de chérir, on a créé un bureau, on doit faire 100 000 francs. On doit faire secrétaire. On doit faire courant, on doit faire un Chaque mois, on retourne autour de 150 000 francs. Mhm. Mais là, on a un valeur humaine en charge. waaw seen objectif. moo tax ngay ngay préféré eh, bañ a wut préféré socialement loolu am na fu mu xaj. ok am na fu mu xaj. ay oubien membres bon actuellement nous sommes à 275 membres yu jënd ay carte de membre. 275 membres mhm. yu jënd ay carte de membre quoi mhm. parce que tey mhm. mooy li ñu wax quoi y a des membres qui ont ne bon rien de gros. WhatsApp bi moo leen intéressé bon ils l'ont demandé ñu ajouté leen ci mais ci registre yooyu actuellement nous sommes à deux cent soixante-quinze membres yoo xam ne ku ci nekk jënd nga sa carte de membre bu ñoo ñoo légal macha allah mu kii mu nekk lu am solo li xam te le président Diegui wax euh, par rapport ak wérule déroulement yi nga xam te ne am na ko activité yi nga xamante ni ñu koy mënee vis-à-vis à à travers wala en dehors Thiès bi nga ñu koy mënee euh, madame Diawara euh, année bi jeex nous sommes au au sommet je peux dire jafe-jafe ak message bi lan la Mm, waaw kon année bi jeex na mën nañu wax ni. ñu des moyen bilan bu ndaw. waaw dese nañu benn benn quatre heures si at bi. Mm-hmm. Euh, di sant yàlla nuñ ko euh, passé si jàmm ak salaam. Mm-hmm. Euh, di ne aussi alhamdulilah aussi par rapport ak bilan. Mm-hmm. parce que par exemple programme bu ñu tracé woon pour réaliser ko. mënuñu ñu yëpp. Mm-hmm. mais sant yàlla te def nañu plus de cinquante pour cent. di ñaan yàlla at bii di ñëw ñu defaat beneen programme euh, euh, atteindre objectif yëpp. ñaar ngeen programme cent pour cent deux cent pour cent mille pour programme <laughs> pour cent sooy programme kay di def sa programme cent pour cent ngay programme mais lu mun xam nga. du lépp ngay mën a réaliser à à cent pour cent mhm. parce que chaque fois day am ay obstacle mhm. loo si àddina am na obstacle mais chaque fois on réussit euh, à détourner yenn obstacle yi mais fu yàlla tudd ni foofu la ñuy yem rek foofu la ñuy yem te di ko sante yàlla bu baax a baax a baax mhm. di si woo ñëpp pour année 2023 vraiment ñu defaat euh, programme base lu ñu réaliser wul ñu fexe ko réaliser tegaat si yeneen parce que yëpp yiw la social la ñuy wax ñu ñëpp vraiment ñu ñëw ñu jàppoo feccandoor dóorandoor eh, eh, pour beneen 2023 incha allah ñu toog fi di naan on a atteint à 100 lu ci gën a naqadi. Hmm? caa lu ci gën a naqadi. dara naqari wu ma si àddina man dara du ma naqari kaw àddina. lu ci gën a neex. <laughs> ah eh, jàmm bi wérgu yaram bi. Mhm. parce que loolu la ñuy ñaan yàlla si kaw wérgu yaram jàmm si la ñuy dundu a dund tranquillement mhm. def eggale suñuy ay mbébét. Mhm. Hmm. bu ne année. merci bonne et heureuse année à toi aussi Didier. tu es membre de Weer Werle famille aussi di la sargal <laughs> dañ la war a posé question <laughs> tamit lu tax nga bëgg Weer Werle. ma ne ma sànq tey ba mhm. bi mu ngi tàggatoo. lan ngay tënk ak lan la. ak ngay ñaax

dañuy remercier nag bu baax aussi commission yi nekk ci wér-wér la yëpp commission yi nekk ci wér-wér la yëpp tey da nga wax tey dama tardé kérok Touba Gueye yaa ngi fa woon. tukki seen tukki yi. presque dem ay Sédhiou foofu. waaw après dañ ciy ñëwaat. <laughs> après dañ ciy ñëwaat. ji ji <laughs> waaw ji <laughs> donc voilà. ji waaw yëpp yëpp nu mu demee. waaw yépp dañ ciy ñëwaat. que ni tey mooy lim la rek. Uh-huh. tay suma démé saña tok ci uh-huh. bërëb. Uh-huh. ba heure bi ma door ñëw ci activité wër wër lay damay sant yalla donc boy sant yalla aussi da ngay sant ñi ñi jàpp. ñi jàpp yépp aussi vraiment muy la commission des jeunes. mënuñu lim. mënuñu lim parce que une fois dama ko wax ci benn réunion. Mhm. ma ne tey ku mel ne Amina Diallo. moo mujj ñëw ci wér-wér lañ nekk pédiatre bi hôpital régional je pense mi ci wér-wér lañ nit ñi métti am fitu tudd wér-wér lañ. te tuddoo ko. donte fii la fekk Yacine fii la fekk madame Diawara fii la fekk Mama Africa fii la fekk Debo fii la fekk madame Goudiaby fii la fekk Zaki. mais tey je dis wér-wér la boo toogee gars ñooy dem bàyyi la fi. donc ñun dañ cee sant aussi yàlla parce donte nag yombul. Mhm. parce que parfois da ngay liggéey. Mhm. seytaane di ñëw. Mhm. ngay liggéey seytaane di ñëw. mais yàlla xam na ko ni wax naa ko président bay di mi ngi nii toog. man nee wu ñu ñu dara ci àdduna. te lu ñu waay gën a bëgg ñu bàyyi ko ak yow. man poste bu ma dem di ci liggéey su ma gisee ku ko gën soxla. ñu bàyyi la fa dem. en commençant par président Beyti. ba ñu gisee nii c'est le président national des auto écoles. dafa war a def promotion te ñu xam ne li ñu def ci sunu rajo mënu ko. dama démissionné daal ci rajo Gontor. Okay.

tay am nañu change bi mais xëy na change boobu madame Dia war am tay mhm. Zapan amu ko amuñu chance dem kër Zapan amuñu chance dem kër Amina mhm. yow vous êtes na membre de Weer Weer da nga ñëw nga jënd carte pour nga mhm. adhérer ci groupe bi mais amuñu chance su ñëw sa kër kon wax naa ko aussi waa Weer Weer la li ñuy planifier ren nañ ci boo nañ ci boole les tournées de Weer Weer la parce que déjà dafa laaj aussi ay tournées de proximité ñu dem ci askan wi depuis 5 ans ñuy tàggoo di ñëw ci Weer Weer la te Weer Weer la jëloowu leen dara

donc damay naan sax du cër. Mhm. kon tey aussi ñu ngi xalaat ay tournées de de proximité. tournée ok yu ñuy def yoo xam ne bëgg nañu aussi. Mhm. wér-wér lay ci 2023 bi. Mhm. su demul kër membre yëpp. dem kër membre yi gën a bëri ci wér-wér lay vraiment mooy sunu suwee. mais nag euh, doo nañ ko fi jëm ay jamono. boobu ci anniversaire yi lañ doon prox ndoolu di seeti nit ñi. mais.

waaw waaw ñu mës ne ma temps ba jeex na waaw <laughs> téeméer ba jërëjëf. waaw merci merci merci merci mon cher. Uh-huh. yàlla nañ ko dundaat ay at yu bëri. naa amiin baale bi vraiment comme li ma wax ba ay turandoo turandoo génn ci wér-wér lay. amiin turandoo feeñ na ci. waaw feeñ ah, feeñ na ci ah heureusement léegi El Hadj Mag eh, eh, mu ndaw. waaw vraiment aussi. <laughs> mooy li mu jéegi mooy mooy li ma wax ah parce que xam nga nit aussi nga tuddee ko doom. Uh-huh. ñëpp ne waal baar jàmm. Uh-huh. parce que tey kooku ci comité directeur bi du ma wax bu dee ba du dëgg. macha allah lu ma teg bu teg <laughs> lu mu teg ba

maa ngi ànd nañ ba ji. ànd nañ ba fu ne tarkala <laughs> fan. jërëjëf ja très bien. an maram Gara an maram Diawara di nuyu képp koo xamante ni mbokk yi yaa ngi biir Weer Werlé famille euh, su ma limee demee jum wala ma manqué wala du ma matal en tout cas mu ngi noonu émission Feeñare bàyyi noonu tey nag fi lañ ko jeexalee fi am na Weer Werlé famille ak tournée bi nga xamante ni moom la ñu amaloon fii kër madame Diawara mbokki jërë ngeen jëf ci ànd bi nga ànd ak si déformation ci kaddu gi Babacar Gueye ci xarale gi nga xam te nekk mooy soxna ah, d'enfant mu ne ci caméra gi ah, sama doom Bintu ak ami ah, ki xam te nekk mooy Naasi Coulibaly waaye ki ma jàkkaar bu baaxee baax naa ne moom la muy Mohamed Diop mu ne ci caméra bi mbokki jërë ngeen jëf et à la merci beaucoup et bonne fête fin d'année et bonne fête à tout le di baal àq ñëpp di baal baax ñi amagul góoñu jigéen ñi tabarkaale yàlla may leen <laughs> ah, ñi xam te nag sax am ñaareel ñaari jéegi yàlla na ko yàlla may amin toog salaamaaleykum merci <laughs>